n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique Total Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique Kër Xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seen i conférence seen i réunion seen cérémonie seen i pause café seen i ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am na ñu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar

ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan ramadan ya karim ramadan ya habib ya habib ramadan yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay ci mooy dama dafa am bis ma dem kër Sàmba am lu ma fa dal yaa Allah yaa Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la nga ne li ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan ya karim ramadan ya habib ya yow xamoo ku ne ci yoon xamoo ku yàkkamte ah baal ma ñëw rek ah coof jug jug la ñu bañ a gis ah, sa jàmm waaw noo def yow sant kay naaj naaj yi bu kiyee da ngay daal def nii rek <laughs> waaye bu naaj yu tàngee tàngee taxaw ci buntu bi damay jàlle jàll kay saa yi buntu bi nag toppal waaye yow mi lee demal demal demal yow mii def ci buntu kër bi waxoo de léegi demal demal demal demal mu yéen <laughs> ah, yow kii lu muy def ak wàngam mu yaatu wi ah, <laughs> yaa ngi ëpp nag de waaye toppal buntu fi waa yow léegi demal demal demal demal demal demal demal yow li ngay def fii waxoo ko ah, demal loo yëf fii waaye dama ci biir sàng rek fekkee Allah ya Allah alhamdulillah dimi yow nga sàcc nga hmm? hmm. dix mille daa ko fekkoon mu na naaw rek xamu fu mu demee na xaamateelu loo ko ba nga ñëw am xanaa xamoo ne ku lekk lu léwul lu mu ñaan suñu boom du baax na jëlal may naa la ma jël eh, jox na ma koy lekk ko na ma di sol ni ma ko joxal dëgg yàlla ah kii rek gër gëm na fi duggal ma lii moo tax boobu ba léegi maam kees trop jërëjëf mu doon loo xam ni lu lëmbaaji àdduna bi la muy xaalis di yàq lu bari ci àdduna bi te moom day objet la boo xam ne ay nit a ko liggéey muy kayit boo xam ne dafa am dañ ko def ci am xaati mu mbind comme képp ku xam ne ay kayit kese la ngay bàyyi xel loolu mën na laa bañ a dugal ci kàmbu te xaalis boobu nag moo tas àdduna bi lëmbe réew mi képp kuy dox te amoo ko sa jàpp nga ni amoo woo sa àdduna fat nit ñi jaay nañ seen ngor ngir xaalis nit di liggéey moroom ngir xaalis di yàq lu bare bari loo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel moo ne dañu woon jaamu xërëm dafay jeex jeexu fi nag ndax xërëm dañ ko daan tabax mu taxaw ñu koy jaamu waaye xaalis tamit objet boo xam nit a ko liggéey kon ku koy jaamu na nga xam ne yaa ngi jaamu xërëm mu yàq ay diggante yu bëri te suñu borom ni faman yaxmal misqaala zarratin xayran yara wa man yaxmal misqaala zarratin sarran yara lu toll ni tarafatal ay ni li nekk ci biir tàndar ku ko lekkal doomi aadama bala ngaa jéggi siraat di ko ko te yàlla balansam yi xeebut loolu kon lu mat a bàyyi moo tax bu ngeen dee dox di jëflante nit ñi di leen bàyyi xel ni xaalis du dara objet la rek waaye nag yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelawaay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dellu ci yàlla lu mun ci lu baaxul ci tay mengoog safaan